Euh, naka la demee ba couleur yi fu mu toll nii ko gis rek day xam ne lii moom euh, lu lu lu ama am solo la da attirance beeg lépp rek mën nga ñëw di ñëw ak ci liggéey bi naka la demee. waaw liggéey bi macha allah lépp liggéey sëñ Touba la rek waaw ndax ñu moom ay ndawum sëñ Touba la rek waaw daanaka lii yëpp taalibe sëñ Touba koy defal donc lépp lu ñu fi def rek xeeb nañ ko boo xoolee cocktail yi. ay cocktail yoo xam ne que ne gàncaxu dëkk bi lañ ko lañ ko defaree wàllum guy wàllum karasol ak bisaab rek moo fi nekk waaw daanaka loolu lañ ko def loolu moo fi nekk. xarañ goo xam ne doo fi teg di wax kenn dara ndax lu mel ne uh, fukki at dund nañ ko bëti donc ku ci nekk li nga war a def ak fi nga war a taxawee daanaka jaratu ñu la koy wax saa boo ñëwee rek li nga tax taxawaay goo xam ne ka day mel ni sa yëf la. waaw te ku ci nekk am nga Pastef goo xam ne waaw day mel ne sa morom bu fi manqué doo doo ko yëg waaw. waaw nag ci àndeek ak yéen ñëw ak euh, taxaw chef xaadim yor wàllum cuisine bi fii ci kër Baye Karim ñu ngi lay jaare chef. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. wa inni auzu bika wa zuriyata min asheytaani rajim rabbi auzu bika min amazar shayatin wa auzu bika rabbi an yaxduruni barki borom Touba barki sëñ Fallou. Euh, ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen ziyaara euh, di leen baalu àq di leen ndokkeel ci màggalu Serigne Fallou Mbacké ji nga xamante ni mooy Kazu Rajab ñu di ko defee fii ci diwaanu Baye Karim Makarim al la euh, di ñaan suñu borom mu yàgg fi tëwër ba li mu naa la liggéey Serigne Touba yàlla na ko def ci lu kawe kawe njortoom ñu ngi leen di ziyaar baax waaw di leen jaajëfal rek ci laaj yi nga xam ne ñu koy laaj ndaxte ñun ñu ngi fii présenté comme Béti Traiteur mooy suñu PDG. waaye nag dañoo nekk groupe collectif boo xamante ni daanaka ci la ñu yëngu yëngu boo xamante ni dañ cee ànd ak yéene ànd ceeg passif nga xamante ni ki fi jóge léegi muy sëñ Moussa mbay moom mooy daanaka mën naa leen ne moom mooy maître d'hôtel bi nga xamante ni moo gère wàllu service ñun ñi nga xamante ni tim ñun ñoo nekk ci wàññi ñu ñoo nekk ci cuisine bi ger cuisine bi ba nga xamante ni lépp lu ñuy def rek dañ koy defee passif ak yéene nga xamante ni mariage baptême cérémonie boo bëgg rek béti traiteur dina la ko defaral boo nu soxlaa it da ngay jaar ci Betty traiteur moom mooy suñu PDG di ko sant di ko gërëm euh, moom nga xamante ni moom jàmbaar lay ci yoon bi lii nag nga xamante ni moom la ñuy def nii dañ cee fas yéene liggéeyal Sëñ Tuubaa ndaxte man maa ngi soog ñëw fii ci bërëbu Baye Karim euh, di fi di di fi liggéey ci Kazu Rajab waaye boo gisee ma fier ci tey dama am du ma ko fàtte ma ko 2007 xel comme 2007 bi nga xam te moom la Sëñ Saliou Mbacké di mujjee def ma ànd ak waa kër Baye Karim ñu déparé ba PA ñu ñëw jamono jooju maa ngi déposé fu ñu naan hôtel Méridien King Fahd Palace ma déposé fa ñetti at jëluñu ma ba ma àndeek waa kër Baye Karim ñëw ba xel kom ñu liggéey Baye Karim génn ay 8 heures ci suba daan ne leen tey jii de sàllaw sëñ Fallou mi nga xamante ni moom moo fi nekkoon moo fi nekk ba tey tey jii lépp lu waay fas ci ëtt bii rek di ko ko am la ma fas mooy yàlla na ma suñu borom dimbale ba ma dem hôtel King Fahd Palace ba ma fa jugee talaata àllarba ci lañ ma woone ma kaay kon wàllum wàññi ma nekk maanaam maanaam sëñ Abdou Karim moom nga xamante ni moom moo tax ma ñëw fa barki say na mooy kër euh, sëñ Abdou Karim borom makaarima lax la euh, ñu fekk ci yenn ci nga xam ne mooy taalibe yi euh, fas yéene leen dékk suñu micro ñoo fasal seen yéene ci bis bi ñu fekk fi jori ñu ngi lay ziar. jori ñu ngi delloo ziar naka tur bi. Cheikh Mamadou Fadal Wakana. ñu bëgg tey nga. waxuñu lenn ci loo xam ne rek euh, anecdote la ci li nga xam ne dund nga ko sëñ Fallou nga xam ne moom ku nekk am nag sëriñ waaye boo jàkkee rek sëriñ Fallou ngay woo nga dugal ñu foofu rek euh, bés. waaw bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaam ala asrafil wa ala alihi wa sahbihi wa juliti mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu te leen ger di ñaanal saahibul fadila cheikh Mouhamadul Muntaxa suñ borom yàggal ko fi tam ànd ak wér di ko ñaanal mboolem xolafaa u yi nga xam ne ñoo nekk ci kaw suuf noonu lañ koy ñaanalee sëriñ Abdul Karim Mbacke borom makaanimal axlaaq noonu lañ koy ñaanale it sunu wasila cheikh Moustapha Mohamed borom ahibawul xadim li nusrati diinal xawim kon tey nag nekk bisum mbégte bi bisub Cheikh Mouhamadou Fadal Mbacké Cheikh Mouhamadou Fadal nag ñëpp xam nañ mooy kan mooy ki nga xam ne mooy borom kun ndax zalika fadlullah yuti man yasaahu wallahu sufan lil azim Serigne day borom gëneelu yàlla Serigne Fallou day borom yërmande waaye Serigne Fallou day soppey doomu aadama yi ndax fi mu ne fi jamono ak jamono ja weesu ak jii di ñëwaat képp ku jàq moom ngay wo muy lu mu am benn waykat la mu waxoon ne wàllu ndeyam mooy wàllu baayam baayam mbay ndeyam moo jur ne jaayam kon moom daa saf sapp ci kër Serigne Touba waaye daa saf sàpp ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax yonent yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam euh, boo toppee soxna Faati Matu Bintu da lay yóbbu ci euh, soxna Awa Buso ba nga ak moom kon ay maamam yëpp ay sërif lañ sëriñ Fallu daa sës rek ci yonante bi sallallahu alayhi wasallam sëñ Fallu it mos naa bindub kaamil ba mu àgg jox ko sëriñ Tuubaa ne ko suñu borom nee na bindal ko kaamil mu ne ko kaamil bi dama koy jaay mu ne ko balma dam laaj ko ba mu ne ko kaamil bi li ma koy jaayee mooy ku la gëm ëllëg dugg ajana mu ne ko nangu na mu bind kaamil bi mu àgg mu jox ko mu ne ko bis naka tey képp ko la xam ne bëggati na rek dina tàbbi àjjana. kër gi la sëñ Fallou doon bayee di tabaxee jumaa ji kon kër gi nii taw féex la tax soo ko xoolee kër gi sëñ Fallou foofu la ne muy Cheikh Abdou Karim Mbacke mooy sëñ Fallou bu wér yara tegin moom la woote jikkoy sell yi sëñ Ba ne la toog gën a génn torop waaye bii nat génn na ko si mbaagal bi. da koy mu yàgg fi lool tànn wér yàgg dimbali taalibe mën nga ñëw ñëwaatal ci tey génnub sëriñ bi nga xam ne eh, toog na lu yàgg génnul waaye tey génnub sëriñ bi am yaas boobu noonu. yéeme na torop moom génn na sëñ moom yéeme na torop moom tey jii moom am boobu noonu moom ñun taalibe moom ñu koy kontaan la torop di ko ka ñaanal chaque jour let ah mu koy mun sax màggal di ko génn di ko teewee taalibe yi waaw. yaay booy mën nga ñoo wax ban mbégte nga am tey ba nga teewee fii ci kër sëñ Abdou Karim. xanaa bëggati rek bëggati rek yal nañu yàlla nangul ñaan yi sëñ Abdou Karim amul morom sëñ Fallou sotti la lépp lum fi ñaan rek yal nañ ko bokk ñun ñëpp ci barke Seydina Mohamed moom mooy sëñ Fallou daal sëñ Fallou la kenn mënu ci leen mooy sëñ Fallou. ban yëg-yëg ngeen am tey ba ngeen euh, ñëwee bàyyi fépp ñëw. fii ngir lépp rek gis sëñ Abdou Karim tey ba ngeen ba ngeen ko tegee bët ban yëg-yëg ngeen am. tey sama xol daa sedd ndax ñaari at màggaluñu ñu ñëw sëñ bi taxaw ñaanal jaam ñi dellooñ ci suñ boroom ñu xam ne ci suñ boroom lañ jóge te ci la ñuy dellu ñu ngi sant yàlla di sant sëriñ Touba mi ñu boole ci njabootam ba tey ñu mën a taxaw fii ci kër sëñ Abdou Karim mu ñaan ñun ñëpp ñu fekkee kon dañuy sant rek di sant li ñu yàlla boole ñu doon ay murit